man la Khadim mbay président mm-hmm. association Lagos du West ñu ngi sant yàlla bu baax baax di amaan mbégte bu baax ci bis bi ñu ko suñu borom mayaatee ñu fekkee ko ngir it fas yéene taxaw suñu mbokki handicapé yi nga xamante ne bii ñoo nekk ci biir kër yi te it am di di am problème mu déplacement. bi ñu xoolee it xam ne ñun jiital nañu ci kanam ñu xam ne war nañ leen a taxaw moo war a ñu taxawu bis bu mel nii ngir taxawu leen ci. loolu nag ñu ngi sant bu baax a baax ci euh, suñu membre yi nga xamante ne bii ñoo bokk ci biir Lagos du Bees ndax kenn ku ci nekk jaaju nga def su nga sa dërëm ak sa ñaar fukk yëpp ñu bokk àndandoo ko wut ay chaise fauteuil roulant ak ci euh, ay lu ci mel ni ay bekke yu mel noonu ngir wutal ko suñu bokk handicapé yi ne ci biir kër yi. bëri na ñoo xamante ni ñu ngi fii. Euh, ñii dañoo amputé seen benn tànk ñii euh, laago bi daf leen dab euh, te yëf yi xaw a doy waar lool ci ñoom bu ñu xoolee nag ñu wax ñu ko ñu diis ñu ko ñoo xam ne bis bii ñu woo leen ngir sargal leen ci dimbali leen ci ak ci moye yu bëri. Euh, loolu nag euh, ñu ngi ciy sant yàlla ndaxte doomu aadama mi ngi dund ba faatu te mun loolu kon bu ni ko suñu boroom jaaralee ci ñun ñu ngi ciy sant yàlla bu baax di sant euh, waa Laago du Wees ñëpp nag ci taxawaay bu am solo bi waaye ñi ngi beral cant ak ngërëm ku ci mel ni Xaadim Njaay action sociale wax dëgg yàlla taxawanu na taxawu nañu jàppale nañu bu baax a baax surtout ci bis bi taxawu nañ ci lool kon ñi ngi lancé appel ci état. taxawu Xaadim Njaay mi nga xam ne moo nekk action sociale bu Mbàkke wutal li ñu sées boo xamante ne bi danañ fa am accès pour handicapé yi pour man di fa dem parce que Xaadim fi mu nekk nii fu mu nekk moo fa teg boppam day loué ay ay ay ngir di fa nekk te loolu état moo ci waroon a taxaw wutal ko foo xam ne fa la nekk mu ngir mu mën a taxaw handicapé yi centre boo xamante ne bi handicapé yi dañ cey xëy parce que c'est très important Euh, handicapé yi am nañ ay ay métiers ñii ñi ngi seen métier ñii jàng nañ am seen i lijaasa ñii ay tailleur la ñii ay coiffeur lu ñu nekk mi ci biir kon nag jot na sëkk ñu taxawu leen ngir ñu am foo xamante ne bi bu ñu xëyee fa la ñuy dem di fa suturlu jafe-jafe handicapé yi yaatu na buñ ko doon lim du jeex dañ ciy tënk leen rek muy mécc fu ñu xamante ne bi dinañ fa xëy ndaxte bekk bokk na ci responsable yi lu ci ëpp boo fa demee wàccuwaay wi ñu la war a jox duñ la ko jox wala sax dun duñ duñ duñ la euh, soutenir ci li nga xamante moo la tax a jóg barki dem rek maa ngi koy wax gars yi dañoo dem ci benn bonne volonté nanguwul tax taxaw wax ak ñun soowantal gars yi lool loolu nag la ñuy xeex ñun ngir xeex mendicité moo tax ñu moo tax ñu jóg kon ñu ngi ñaan yàlla yàlla suñu borom gën ñu jàppale ci loolu ba euh, yéene bi ñu ci am suñu borom moo taleen ñu ko di sant bu baax a baax DG galo Ba parce que bis bi at mu jot kenn fekk ko ci lim ñu ci jàppale kenn jàppale wuñ ci na leer kon ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko wax mention spéciale mention très bien ci taxawaay bi nga xamante ni bii am na ko ci biir Lagos du Ouest. kon ñu ngi lancé appel ci ñëpp ñu bàyyi xel personne vulnérable mooy handicapé yi di ñëpp parce que handicapé bàyyiwul kenn tant que dund mi nga am handicapé da am kon nag war nañ leen bàyyi xel bu baax a baax a baax.